mais aussi di nuyu ñi seetaan di ñu bàyyi xel ci solution info TV euh, comme ni koy defee saasu su ne nag ñu teew fas yéene waxtaanee actualité bi tey nag boo gisee titre bi ñu def mooy Macky ak Sonko kii gañ kii perd léegi ñu yokk ci essi Cheikh Bara Ndiaye avait loolu lu tax ñu wax loolu ci kanam dinañ ci dikk ci titre bi parce que doonoo nekk ci benn jeu boo xam ne bu compliqué la ci diggante Macky ak Sonko mu laaj calcul mu laaj yoote mu laaj waxtaan mu laaj lu bari waaye dañ koy njëkkee rek tiis gi ci réew mi mooy xale yi mbëkk gaal looce yi di des ci géej gi ñii naan am na ñi naan amul ñii naan ministre affaire étrangères nee na lii wala lee communiqué bi génn na Sonko wax na lii wala Mimi wax na le lu tax débat boobu di compliqué ci sunu gars yi nekk sunu nguur yi mais aussi di gërëm ku mel ne ñi nekk ci opposition bi xam lu tax ñu leen di gërëm ji nga lu tax ñu naan opposition dafa baax ci réew mooy mbir mi. bi ci ONG yi waxee presque bi wax ci génne yenn information yi ci ni am nay xale yu jógee ci réew mi des ci géej gi daf ci am tànqamlu boo xam ne kilifa yi dañ doon tànqamlu kenn déggu leen mais bi Sonko waxee Mimi wax ci la état bi génn jox ñu ay xibaar yu wér la ak yu wérul waaye am na sax ñu ko weddi te loolu lépp lu ko indi mooy yéex a wax boo waxul rek dal lay waxal looloo tax ñu ne opposition mën na nekk une opposition de contribution proposition mais mun na nekk une opposition radicale boo xam ne day tiñal nguur gi parce que man dama gëm ni sunu nguur yi bu dul woon amuñu ay opposants yu ci mel ne Sonko ay Mimi Touré Guy Marius ak ñeneen ak ñeneen gëm naa ni sunu nguur yi bari na liy xew ñun duñ ko yëg wala bokk dara xew ñu wax ñu loo xam ne wute nag li am mais heureusement am na nu opposition bu exigeante loolu da des fois bi naan opposition bi lu ñaaw rek la ñuy wax wala ñii di activistes yi. wala ñii di porte de voie yi ñii di wax ci télé ak rajo yi danoo contre diw ak diw mun na am bul leen dégloo woon xel bañ leen a dégloo xel ñu xam ne ñoo ñu ñàkk ànd nguur njariñ lañ ci nguur parce que ñi faral nguur ñëpp li ci ëpp mooy dañuy jàpp ni nguur seen kilifa la si kim rek dala leen war a gëstuwaale li neex nguur gi rek lan war a wax wolof bi ne booy déglu sax déglu say noon ndaxte mën nañ di wax bay wax sax lu lay jariñ maanaam noon bi doo ko tànqamloon sa noon doo ko tànqamlu mun nga di ko déglu ndaxte ci biir ay waxam njariñ mi ngi ci kon di jël genre débat yooyu di ko teg dafa am solo débat yooyu nag boo gisee tey mu judd jëm ci mbiri immigration clandestine mooy wane ni suñu politique yi ñun dañoo échec nguuru Abdou Diouf Abdoulaye wadd mais aussi ba ci sax nguuru président Macky Sall parce que du guléet problème boobu depuis 2005 presque chaque année mu ñëwaat est-ce que def nañ ci jàngat bu war pour xool lan mooy yóbbu xale yi ak nan lay def ba téye fi xale yi bu dee nguuru Abdoulaye wàdd weesu na wàdd Wade nekk ay erreur mooy bu mu fi jugee ci réew mi dafa ne li jëm ci wàllu politique de l'emploi man damaa échec Abdoulaye wàdd nangu ni dafa lajj tey jii nguurug Macky Sall tam waroon nañ mën a nangu ni danoo échec te échec boobu yëpp lu leen ko indil parce que nguuru Wade mën nga leen comprendre ci lenn mooy bu ñuy ñëw. phénomène bi lu bees la woon ci ñoom te nag lu la bett mën la bo jamono yi lan doon wax ay crise mondiale ak ñoom seen mais nguurug Macky Sall bi ñëwee yooyu dañ ci waroon ut ay pexe mais loolu lépp li ko indi mooy Macky Sall li ko échec loo te tey jii moom xam na ko moo tax sax gëm naa ni moo tax nekkul candidat mooy dafa topp politique pendant douze ans xam na ñu bari ñu ngi naan Macky liggéey na. def na fi TER BRT def na fi li ak lii mais pour mu man pendant douze ans Macky mënoon na def lu ëpp lii ci réew mi bu doon nii dafa jël politique teg fële mais ci douze ans yëpp mooy nan lay def ba sama première mandat maanaam Macky dañ ko fal 2012 rek mu commencé di lijjanti nan la fi nekkee ba am deuxième mandat maanaam moom bi muy door premier touram première premier mandat am lay lijjanti nan lay amee deuxième mandat boo gisee mbiri Karim Wade mbiri Khalifa Ababacar Sall ak mbiri Sonko te pour man li tardel Macky sàll ba tax li jëm ci wàllu politique de jeunesse ak li jëm ci wàllu social demande sociale mu échec fa mooy dafa topp politique gu topp xeex bi xeex mënut a ànd ak xalaat mais xeex mënut a ànd ak liggéey Macky dafa xeex lu bari léegi nag am na am na xeex yoo xam ne doon naa ko wax day jeexal doole maanaam Macky day xeex xeex yi jeexal doole bu xalifa yomboon na ci moom mais dafa yokkoon ay noonam. mais bu sonkoo doolee ji mu ci bàyyi moo tax mu dis ci moom moo tax mu mer ci moom ba tax lu lu mu bari lu mu waroon def am na ay initiative de am na lu mu bëggoon de ndaxte boo xoolee ay DER ay BRT politique sociale bourse de sécurité mais bourse de sécurité boo xoolee boo nee 500000 at bi ci topp nga yokk ba un million mooy wane nii ñi gën a pauvre danoo gën a yokk ñi gën a ñàkk danoo gën a yokk lu waral xale yi di dem mooy li ñuy am ca bitim réew mënuñu ko am ci réew mi. teg ci bari na ci ñoom yoo xam ne danaan dee dee la rek fu mu jotee da nga koy def man mii di wax ak yow ànduma ci immigration clandestine ndaxte yàlla dafa ma nattu ma xamoon ci nit ku ma jege suñ borom mayet ko wër wërsëgam fii ñun ñii mun doon jëndal ataaye bis ñëw mu bàyyi fi moo ñu xawoon a mag soxnaam bàyyi fi doomam dem des ci géej gi kenn gisaatu ko li may wax ni yàgg na ci nguuru Abdoulaye Wade la woon <coughs> kon exemple yooyu boo ko gisee gis ko ci ku la jege nekkoon sa xarit kon mënatoo ñaan benn gone di nekk ci yoon woowu waaye tey jii boo ne xale yi toog leen mais danga naa leen toog leen ci lan mooy toog leen di gën a xiif di gën a mar di toog ci banu jaaxle li Youssou Ndour doon wax foo war a tekki tekki woo fa doy na waar maanaam foo war a tekki tekki woo fa doy na waar ci koo xam ne mat nga tudd mat nga tabaski waaye kenn mënu laa jariñoo dama def démb benn xalaat ma ni xale yi di dem yëpp depuis 2012 ak tey jii ñaata xale ñooy ñàkk seen liggéey ci réew mi bi ciy mujj mooy Covid 19 ñaata nit ñoo yàq ñàkk seenug liggéey ñoo ñu ba tey ji am na ci ñoo xam ne gisatoo leen te ñi ngi doon am seen teranga Covid bi mooy li fi jaar beneen bi ci topp mooy infrastructure yi ñuy wax. naan defar nan terre defar nan BRT autoroute à péage mais euh, chantier yooyu yëpp ñuy def fi ñu ko doon def ay kër a fa nekkoon mais ay liggéeykat ñoo fa nekkoon di liggéey man des fois dañ naan étude d' impact environnemental mais war nañ def étude d' impact économique ci wàllu koom xool fi BRT jaar terre jaar fa li jëm ci yenn xàll yi ak yenn pont yi fépp fu muy am ay liggéeykat ñoo fa nekkoon ñu yëkkati leen. mais liggéeykat yooyu ñu yëkkati woo yi leen fan la leen jëmee après mais loolu jar na laaj marché Sandaga gi ñu tojoon ana ña fa nekkoon marché Thiaré yi bi ñu tojoon ana ña fa nekkoon marché bi beneen keneen ak keneen ba fi teer jaar ak berte xam na loolu booy jàngat ñooñu tey jii bu doon suñu nguur yi def nañ étude d'impact économique xayma fi arène national bi nekkoon ñu fa nekkoon di def mbayum mbayum noor maanaam di def mbayum dër nga dem ci dëkk yu mel ne Lompul ñi def ak mbayum ndër ay centrale ñëw fa ay GCO ci wàllu zircon bi nangu seeni suuf baykat ya fa nekkoon doon bay mbay moomu doxatul ñooñ fa lañu jëm parce que dama ci xam ñoo xam ne xam naa ci ku waroon na mbëkk gaali yi ginnaaw yàlla sama xarit la ñu séq ay teraanga man maa tax mu des ci réew mi parce que toolam la yaakaaroon mais tool boobu doxatul parce que ay centrale ñëw nanu nangu tool yi ña fa nekkoon ñoo ñëpp léegi fa lañ jëm looloo tax dama ne 2012 ak tey jii depuis que libéraux yi ñëw fi côté infrastructure liggéey nan li jëm ci wàllu séq ak waa bitim réew yi fi ñëw di dugg di xo di jëfandikoo suñu suuf bari na mais suuf yooyu ñekk ko moomoon di ko jariñoo li may wax ni topp xam na ko arène nationale fu mu nekkoon ak technopole beeg li jëm ci euh, peggub tali bi mais ñooñu ñëpp ay nit yu doon tedd lan kon ñooñu bu ñu fa nekk bu dee dañ fa def ay infrastructure nekkatuñ fa ñooñu fan lañ jëm kon dafa laaj ay njàngat léegi nag njàngat yi lu tax sànq ma ni danoo échec mooy ñi waroon a dimbali Macky Sall ñoo ko dimbaluwul mooy benn na ko xeex bi ngay xeex amul njariñ parce que Macky bu nguróom jeexee kenn du ko laaj xeex sa diggante ak sonk xeex bi sa diggante ak Karim Wade ak sa diggante xam lu mu koy laaj loo fi def ci wàllu xëy ci wàllu capital humain fan nga jëlee sénégalais ak fan la ngi yóbbu ci wàllu ndóol kon tey ji xale yi da nga naan leen toog leen mais tey ji buñ fi doon toog ci lan la ñuy toog ci wàllu xëy ci lan lañuy ñuy toog ñu jël ay gouvernement combat ak attaque mais gouvernement yoo xam ne tey ministre ya fa nekkoon ñoom buñ falo ñoom ñëpp seen yitte gu njëkk mooy na lay def ba xeex ak Sonko na lay def ba tooñ Sonko ñu bari ci ñoom te maanaam yitte gi ñu waroon a jox département yi leen dénk seen wàllu ministre man dama jàpp ni taxaw bi ñu ci waroon taxaw dafa des tey jii ministre de la pêche. mais secteur boobu bokk na ci secteur yi daan gën a dundal réew mi wàllu napp gi ndaxte man am na ay mbokk yoo xam ne soxlawuñu woon Dakar soxlawuñu woon tukki ci àddina mais tey jii bu géej gi doxatul dex gi doxatul ca Ndar nan lañuy def mais seen gaal yooyu la jël di mbëkk di dem waxuma la ñi doon napp rek di jël gaal yi di dem mais ñi doon liggéey ci euh, secteur halieutique bi rek ci wàllu napp ak yooyu ak ñi daan nekk ci lii ñi daan yanu ñi daan jaay ñi daan lii maanaam benn secteur la waxaan du nappkat bi kase mais nappkat bu mu nappee ba pare sax ñeneen ñi nekk ci ginnaawam boo demee yaraax nga dem ndar nga dem le foo mën a dem ba ci ay dëkk yu mel ni ay lompul ay euh, dëkku géej yëpp ba ci ay ngor ak ñoomin seen léegi bu dee ni tubaab yi dañ leen jaay suñu géej ñu gëti lépp jël ko léegi nappkat yu fi nekkoon jàpp ni ñoom bu ñu génnee seen kër rek ci géej gi lan mën a dem sangu napp jën jaay ko tedd teddal seen njaboot ay at ñu ciy dund de loolu mënatul am bu ñu xëyee dañuy jàkkaarloo géej gi rek jàpp ni géej gi bu ñu ko mbëkkee mbëkk océan li waaj doon wax use ba sorewul fa la raay ba téenee da ngay mu ngi ci ginnaaw géej gi parce que am na ñu daan xalaat loolu naan boo jëlee géej gi rek mun nga daw ba ne egg États-Unis maanaam rêve yooyu ñu doon am te daaw ñu ko réaliser tey ji pexe amul te loolu échec gi suñu nguur yi échec te politique rek yóbbee leen ko ak xeex yóbbee leen ko loolu moo indi lii dinga bi ñuy njëkk fa bi ñuy mujj fal gouvernement combat ak attaque bi dama am sam benn xarit bu nekk bitim réew danoo fal gouvernement bu ba pare mu woo ma mënu ma Macky échec na ma ni ko lu tax mënu ma xoolal profilu ministre yi mu tudd ay ministre na ma xoolal ministre bi ñu dénk tourisme xoolal ki ñu dénk li jëm ci wàllu commerce xoolal ki ñu dénk wàllu jeunesse xoolal ki ñu dénk wàllu communication mun ma ñii ñëpp ay booy lan mun a ay booy lan ñoom dañuy jàpp ni dal leen a fal pour ñii indi ay problème mais duñ régler ay problème alors que bu la falee dana la régler suñu problème ci wàllu xëy ci wàllu ndaw ñi ci wàllu tourisme ci wàllu peche ci wàllu leen nga jéem a xool yan pexe ngay teg yan politique ngay teg pour loolu dox mais yow sa temps yëpp danga ko jox xeex xeex tey jii danga ciy gis koo xam ne ministre la ñu fal ko invité ko ci émission deux heures temps mais deux heures de temps émission yëpp politique lay wax mais département buñ ko buñ ko denk mënu la ci wax dara mënu la ci wax lu mu def mënut la ci wax fii la ñu jëlee fii la ñu jëmee lu ci mel ne Prodac gi doon wax ak Mame Mbaye Niang mais Prodac Macky bi mu koy créé mais pour téye woon fi ndaw la mais Prodac lu ko gën a baax ci àddina amul. mais lu tax Prodac doxul ana xaalis ba fan la dugg ak ana DER bi ana leneen ak leneen léegi ñu jël suñu ndawi réew des fois bu leen yi financé naan leen ay xëy ndaw ñi Jakarta Jakarta lañu jël def ko liggéey kenn xeebalu leen ko mais suñuy ndawi réew gën nañ ambitieux que xëy di yor Jakarta Jakarta boo xam ne bu événement amee préfet jël dogal na leen toog leen seen kër. capital boo xam ne dañ ko jakartaise jakartiser bari na ci ndaw yoo xam ne tey ji xam la lañuy xëy ci naar bi boo xee man gis ay jeunes boo xee mën na ci naar bi lay xëy ñu ne lan ñu ne noo pari foot lay jouer am na ñoo xam ci la xëy ci lañ def liggéey les carte carte ci ndaw ñoo xam ne tey danoo waroon xëy dem liggéeyi wala ñu jàngi métier jariñu jariñ seen bopp jariñ seen réew mais nelaw googu ñi ñiy nelaw dafa mel ne dafa arrangé sunu état yi njëkkewul ci Macky Sall loolu nag mu ñuy indi ci yenn ndaw yi dem nag ba jàpp ni système dafa war a changé yaa ngi dégg waxu Ousmane Sonko toog leen fii ñu lijjanti li ñuy lijjanti parce que war affaire yi war na mën a sottee fii mais moom même moom bu ñëwoon mbir yi du yomb même moom bu ñëwoon mbir yi du simple. parce que li fi yàqu bari na tellement que nit lijjanti ko ci cinq ans wala deux mandats day compliqué kon échec yi suñu gouvernement yi échec mu indi lii kon mu laaj taxawaay parce que Macky li ko fi dese bariwul li mu ci mënoon def na ko mais li mu ci deful woon mënoo ko ci def te li lay wan ni ñu bari ñu ngi naan Aïssata Tall Sall moom dafa yéex a wax ci mbir mi mais démb Sa Ndiogou wax na ko ñoom genre débat yi arrangé wu leen parce que day war a échec échec. yow nga ni def naa li ci xëy ndaw ñi def naa li ci deer def naa li ci lii def naa lii ci lii mais jamono bi nga koy wax ndaw yi ñi ngi dem di dee ci géej gi mais débat boobu du arrangé état bu ko tubaab bi waxul woon góor journaliste wax ko réseaux sociaux amul mën na am sax ñun du yëg li xew parce que day wane seen cuune day wane seen échec te pourtant bu leen dénk suñu réew du pour lii am na am ministre bi ñu fi faloon bi ñu ko njëkkee fal ministre de l'intérieur mu ñëw toog devant la presse ñu ni ko 450 ndaw benn journal pen daf mel doonoo des ci géej gi xam lu wax je ne suis pas pour compter de morts ah c'est kon di ñaanal ndaw ñooñu wax leen ni pexe bi du dem ci géej gi di dee pexe bi du dem ci géej gi di dee pexe bi mooy toog fii ñafe ko job mbir yi dox loolu nag du neex a dégg parce que ki nekk ci jafe-jafe da koy yërëm mais boo ko dee yedd du la dégg mais dina baax dina baax li waajo doon wax baax na ba noppi sax waaye dina gën a baax mais il faut que ñu della suwar yaakaar ak ngëm-ngëm suñuy ndaw gëm leen ni mën naa ne la récompense elle est au bout de l'effort njariñ mi ngi ci ginnaaw coona bañ a yàkkamti bañ a jàpp ni dafa war a xëy sotti mais malheureusement politique rek moo dox ci réew mi da ngay gis jeune boo xam ne amul xam-xam amul tus dugg na ci politique jege na parti au pouvoir léegi day am xaalis boo xoolee tey ji bari na ci sax ñu nekk ci opposition bi danoo jàpp ni ëllëg seen waa ji bu fayoo faloo sax ñu fayee ko alors que mbir mi du affaire u intérêt personnel général la il faut que takku ak ku mën a toog ci réew mi il faut ñi muy fal ñu doon ay ministre ak ku mën a doon ñu takku jàpp ni réew mi bu baax Sénégal ñoo ci dugal seen loxo pour réew mi mën a dem ñëpp mun ñu tekki ñëpp mun ñu tukkee ci kaw ji nga ñi tukki dem sax bu boo sañ bu ñu sañoon seen teraanga da nga koy indi ci réew mi ji nga ñi nekk ci diaspora bi boo gisee jamono yi ñu gën a actif ci wàllu politique man gis naa ci koo xam ne Espagne la ne kayitu Espagne la yor soxlawul dara Sénégal mais dafa ñibbi Sénégal mu ne man la ma gis Espagne laa yéene sama réew mooy di bu ma feebaree mën a faju bu ma xiifee mën a lekk bu ma bëggee liggéey mën a liggéey loolu tax ji nuyu waa diaspora bi mais aussi di seen taxawaay parce que bu leen neexoon ñu égoïste ne ña nga fële lépp baax na seen yoon nekkul Sénégal mais boo leen xoolee dans les réseaux sociaux ak li jëm ci vie politique bi niñ ci mel jamono yi ça montre que buñ sañoon benn ndaw lu jël gaal yi di mbëkk di dem mais fii la ñuy tekkee mais malheureusement ñin dénk suñu bopp dénk leen suñu destiné taluñu ñu politique lan tal mbiri mandat nan lay def ba falu kon moom mooy wutu loolu nag moo ñuy dugal ci. li ñu dugaloon ci titre bi mooy mbiri Sonko ak Macky Sall kan mooy gagné ak kan mooy perte parce que mbir mi nag jamono yi course contre la montre la El Hadj bu la ci kenn nax course contre la montre la six mois moo des ci élection sept mois Macky Sall équation bi mu dugal gars yi problème la mooy bu doon ni moom ba tey ji day ut pour nekk candidat day naqadee jëflanteel mais ki ne bëggatuma mooy quelqu'un qui n'a rien à perdre maanaam moom amatul lu muy perte wax na ko waa Benno yi mooy du ma dugg ci combat boo xam ne un combat perdu d'avance maanaam di dugg ci xeex boo xam ne bu ma ci demee élection dañ may gagné xam na Macky Sall wax na ko waa Benno yi les élus di nga loolu mu leen wax noonu Macky loolu la gëm parce que bu ko leeroon ne moom day gañe te bu dee élection day am ndam Macky mën na nekkaat candidat. mais Macky mesuré na lu bari te am na information yu amul moo tax mu racceeku ndaxte gàcce gu gàtt moo gën gu gudd léegi nag du seetaan gaayam yi mais looloo tax mu dugal na ci équation wu li ma bëgg moom ngeen di def mais da ni di muyal la mayo mais beneen équation bu mu leen dugal te ñu bari duñ ko bàyyi xel mooy bu dee déggal ngeen ma ma tàndal leen candidat ñu dem élection waa benn mën nañu dem élection. ma ñàddal leen Sonko téel leen ko ngeen dem ma jàpp ci ngeen gagné parce que élection ak Sonko ñoom xam nañu ne du élection bu neex a gagné mais bu dee déggal ngeen ma di nga ut candidat ñu jàpp ci ma yëkkati moyens yi génnee ko parce que nag ba tey jii ministre de l' intérieur mooy ki ko fal te ministre de l' intérieur politique la politique la Antoine day politique xam na yooyu da ciy joué mais tey jii bu dee ni gars yi Macky déggalul Macky Macky bu ko neexee mu tànnal leen ministre de l' bu maandu. fexe ba Ousmane Sonko bokk te bu usman Sonko bokkee da leen di gagné moom mu rocceeku ne sama yoon nekku ci bu boobaa kenn du wax Ousmane Sonko moo gagné Macky Sall parce que Macky Sall benn problème la am du Khalifa du Karim du Idi du kenn Ousmane Sonko mooy duma dugg un combat perdu d'avance mooy dugg ci xeex ak Sonko yéen ngeen taxaw fale ma ñàkk boobu le combat. du ma ci dugg kon da ngeen may déggal ma ñàddal leen waa ji téel leen ko parce que Sonko ay mbiram ñu ngi ci yoon naam kenn tax nekkagul àtte bu définitif bu ko mën a gàllankoor parce que way yu amagul daaneel kon Macky foofu la jëm ak ñoom loolu daa man la amul lu muy perte mu dafa jàpp ni lépp da ko war a gañe bu waree perte bàyyi Macky loolu la gëm sama bopp ma la gënal du bañ naa la nagam man mii maa mën a xëy na du ma candidat xëy wan fii ginnaaw benn ko affaire dara ci man man gëm naa Macky noonu lay joué gars yi te gars yi équation boobu mu leen dugal gars yi tam comprendre na ni loolu lu mën a ne la mais problème bi mooy boo yoratul décret juróom-benn weer dese la fi nekkatoo candidat amatoo benn ambition ci sa kanam en tant que président la nga daan wax gars yi démb ñu koy dégg tey jii duñ ko dégg Aminata Assome Diatta génn na keneen génn na keneen dina génn keneen dina génn. parce que waxi sëñ Modou Kara ak waxi kii di waa ji nu mu tuddati Souleymane Ndéné Ndiaye wax jooju du wax ju ñuy xeeb mooy na ñëpp bokk te ñooñu ñaar ñu jege Macky la mooy na ñëpp bokk bu nu bedd kenn te ñëpp bokk bu ñu koy wax Sonko moo tax ñuy wax Sonko moo tax ñuy wax kon Macky bu ko naree gaa yi naree sonal dina fexe pexe yi Sonko bokkee bu boobaa. moom wayam gën a rafet xam nga wayu na lay rafetee mooy Macky Sall neewoon na gars yi neewoon na candidat la mu xëy leen duma candidat ñu gars yi waxoon na ni li muy def yëpp da koy def pour gàllankoor Sonko mu xëy ne gàllankooru mu ko day bokk mais ndam loolu ndam lu ko gën a rëy ci Macky Sall amul te ëllëg Macky moom rek la ñuy jugé ci réew mi ëllëg moom rek. la nit ñi naan moo fi defoon lii moo fi waxoon li mais tey jii li xew yëpp gars yi ay sikkim lan bilaamu Macky rek la ñuy waxtaanee ak jaar-jaaram ak li mu fi def léegi nag bu dee Ousmane Sonko li ma naan Macky amatul lu muy perte mooy Ousmane Sonko am na lu muy perte loolu aussi il faut que ñu sóoraale ko lu tax ma ni am na lu mu mën a perte tey. yaa ngi dégg discours yi di changer moom waxagu ko mooy nan fexe ba ñoom ñaar ñu waxtaan ñu jalog mais wala fii dañ ne lu waaye bañoon daaw bu ko bañee ren ay pexe moo jubul am na tey man bi mu musee dé mujjee dégg Abbas Fall am na bunt bi mu ibbi boo déggee arabisants yi waa Moda bi am na bunt bu ñu ibbi Sonko boo ko dégloo ak waa France 24 am na bunt bu mu ibbi mooy waxul day dem dialogue waaye màtt na fii mais ëf na fii parce que benn jamono aussi li ma naan xeex bi jeexal doole mën na Macky Sall def ba lu bari réalisé ko ci réew mi mais Sonko tamit xeex bi am na lu mu ko may mais am na lu mu ko xaj xeex boo xam ne dafa tax ay 700 personnes yu doon ànd ak yow dugg ci kaso bi. loolu tax boo déggee Sonko naan indil ma Modou photo Sonko boo déggee font Sonko naan euh, kenn du ma teg paaka ci put bañuma dialogue mais kon ñoom du ma teg paaka ci put mais paaka ci put mënut a weesu sept sept cent personnes ay nit yu ànd ak yow yu ànd ak yow nekk ci loxo yoon te yow mënoo leen génnee léegi problème bi mooy mën mën na doon chantage mooy da ngay ñëw waxtaan ci li ñu bëgg ñu bàyyi seen nit ñu yolomal parce que bu doon ni Macky dafa ne du kandidaa ñu commencé di bàyyi gars yi am nga am loo comprendre mais ñi ngi gën a téye ñi ngi gën a lii te des fois sax ñu téye nit ci loo xam ne jëlul téye bu nee la Birame Souleye Diop président Macky Sall mënoon ko baal baalu ko te baal ko ci la doon amee ndam Macky Sall baal Birame Souleye mooy ndamam moom tëj Birame Souleye doon ndamam Birame Souleye kilifa gu mu toll ne moom taxaw mooy na la baal ma nga bàyyi ko lu ma lay wàññi nga bàyyi Fadilou Keita lu ma lay wàññi nga bàyyi Cheikh Bara lu ma lay wàññi Cheikh Bara lu mu la def loolu daal dañuy ñaan président Macky Sall kilifa la lu fexe ñu bàyyi Cheikh Bara Ndiaye ak ñeneen ak ñeneen mais ñooñu ñëpp ñu xëy tee leen ay jeunes yoo xam ne am ñoo xam ne fàtte na leen ci ay forces spéciales rebelles ak ñeneen ak ñeneen teg ci jël barikat tëj sa kër. bala barricade ak léegi ëpp na weer mënoo génn doxi say soxla mënoo génn def say activité politique ak yeneen ak yeneen yoo xam ne tey jii mi nekk suñu kanam looloo tax ñi naan Ousmane Sonko bu mu nooyal bu mu waxtaan bu mu def li mais yenn saa yi tamit il faut ñu dimbali Ousmane Sonko il faut ñu dimbali ko nan la koy dimbalee sa kilifa doo ko tiiñal mooy ñooñ di ko wax ñooñ ñëpp est-ce que barricade ba nekkoon Ousmane Sonko mën nañ ko dindi ma nga fa ñaari weer da ko mën a dindi ñoom bu mënoon dara ci usmaan sonk mais day dem dindi barricade bi mais ma nga fa te ñoom ñooñu di wax kun ci barricade woon fekk Ousmane sonk ci biti bu wooyee booy na leen ñu dindi ji ko ñu dindi ji ko parce que am na doole boobu te am na sañ-sañ bi am na fit bi gaynde la mais ñi mu bàyyi ci biti nekk biir këram lan lañ jéem pour génnee Ousmane Sonko këram dara ñi ci kaso mett ay 700 lan lañ def pour génne leen du sax mobilisation pour mën a fexe sax def la pression pour ñu génn defuñu ko tey ji candidature bi ñuy wax investiture mun na am ak lu ne investiture baax na mettre la pression sur l'État baax na. mais aussi waruñu jël Ousmane Sonko rek tenir ko en otage na ko del radical del radical tey jii Ousmane Sonko ëllëgam ci lan la ne ci loxoy justice ci loxoy justice ak loxoy Macky Sall justice boobu mënoo continuer di leen attaquer mënoo continuer di dal ci seen kaw takk der yi mënoo continuer di dal ci seen kaw parce que aussi front yi bari pour man li sonal Ousmane Sonko mooy front yi bari yi ñu ko ibbil front yi bari ñu ngi koy ibbil di nga àddina sukk du tee yóbbaale say oom essentiel bi mooy Ousmane Sonko ci waa Pastef ak ñi ànd ak moom mooy ñu dem élection mu gañe ko ñoom ñoom loolu rek moo leen war a yitteel mu fexe ba mu bokk waaye xeex boo xam ne day tax doo bokk xeex boo xam ne day tax yow doo génn sa kër justice bi war a lijjanti say mbir naam yenn saa yi dogal yu jël yu bari ànduñu ci mais justice boobu bul ibbi front contre ñoom mais am na ci ñoo xam ne tey jii danay jàpp ni yow mii li nga séq ak ñoom boo faloo doo leen mayti jàmm lu la mën a bloqué dañ koy def takk der yi la même chose kon des fois du rek yor discours boo xam ne da ngay xeex da ngay saaga da ngay ñëw ci confrontation da ngay lii parce que des fois politique da ngay xayma bi nga dalee xeex ak léegi lan la xeex bi may Abdoulaye Wade xeex na 88 taxul mu falu. xeex nag 93 taxul mu falu mais mille xeexul bi muy jot ci nguur xeexul yan pexe la teg loolu tax politique des fa ay pexe baax ci am conseil ci wàllu communication am conseil ci wàllu politique ci wàllu yoon parce que pour mu mën jamono yi mbir mu du xol la ma doon wax Macky Sall am na fu jamono du toll du xol mooy lijjanti réew mi xel koy lijjanti mais waa Pastef aussi ay stratégie yu leer mais aussi am discours boo xam ne aussi. day doon une discours politique politique aussi daa am nu koy doxalee am nu koy doxalee Cheikh Bara waxoon lu tax ma def ci titre bi et si Cheikh Bara raison parce que Cheikh baara avant ñu koy jàpp ibbi woon na ñaari buntu te man kilifa gu mag wax na ma ko kilifa gu mag ci réew mi mun ma Ousmane Sonko bu demoon ci procès bi toog ak lu ko Adji Sarr mën a teg gëm na ni moom duñ ko condamné ci viol duñ ko condamné ci corruption de la jeunesse man kilifa wax na ma ko. dan koy bàyyi mu dem am na ku ma junjoo mu ne mu ne moom loolu la gëmoon kilifa gi loolu la mu wax mu ne ma mais ñàkk dem bi est-ce que nekkul ni gars yi danoo jàppoon da leen di défier ba mu jur lu mu jur. mun na am dialogue bu njëkk bi ñorul woon Macky Sall tamit munoo woon nit dialogue ba pare jël ay nitam teg ci kaso bi nitam ñoo ñooñu nekk ci kaso bi des fois il faut nga yolomal bàyyi dara suñ ko bàyyi dara waxtaan mën a neex. nga bàyyi Diomaye bàyyi Cheikh baara bàyyi euh, Fadilou Keita bàyyi ñoom euh, Ami Dia bàyyi ñoom Papa Mamadou sekk ñoom Karim Gueye bàyyi keneen ak keneen Sonko dina ne ah Macky de bu boobaa bu Macky deful eff maanaam bu Macky dee def effort di bàyyi Sonko toog fa mu toog bu ñëpp dañ naan Sonko moo sikk mais Macky pour le l'instant ak jàpp geeg ñàkk bàyyi gi dafa am benn piège bi muy daanu parce que ñu bari doonoo jàppoon ni Sonko mooy nitu fitna ñu bari doonoo jàpp ci sax tubaab yi mais boo gisee bët bi ñuy xool Sonko léegi nga xam ne nin nin ko jàppee woon ak nun ko jàppee tey du benn mooy waa ji dugal nañ ko këram léegi waa ji ab victime la xam dañ doon wax victimisation la ne léegi Sonko dem nañ ba yóbbu ko ci mu nekk victime te loolu da ciy gagné mooy tëj nañu ay nijam tëj nañ ko ci këram barricade nañ ko attawul leen bàyyiwul leen eh, kii bi ñuy wax nu mu tudd résidence surveillée bi est-ce que euh, euh, ab ban juge moo ko lii mais yooyu yëpp day may position de force Sonko mu looloo tax des fois yenn situation yi day métti moom mooy da koy arrangé mais depuis quelque temps déggatoo leen Sonko mun a génn leen xeex wala lii wala la peut-être mun na nekk discours mais est-ce que li mu war a am ëllëg pour jot ci réew xeex moo koy may parce que xeex bi mun na jàpp ni moom da koy arrangé moom Sonko fekk arrangé wu ko fekk ñi muy xeexal la xeex bi arrangé xel laay waxee de xel na ngeen ma dégloo xel bu baax parce que yi amatul lu muy perte amatul lu muy gagné Macky lenn la mënoon gagné. mooy mu fexe ba nekkaat candidat gañewaat réew mi di doxal loolu mënatul ne amatul li muy perte parce que ñàkk ñàkk réew moo gën a me moo gën a rëy ci àddina ku ñàkk réew leneen loo ñàkkati du problème ci yow lool di gisee ni muy wax ak waa Benno yi kon waa Pastef ak ñu wër sonk nañ ko dimbali pour man enjeu bi xamoo lan la bu dee naxante da koy maye ñu fexe ba barricade bi dañ te waxtaan mun na ko dindi c'est bon Modou ñu fexe ba ñi ci kaso bi ñu bàyyi leen ñu fexe ba Sonko nekk candidat loolu rek mooy ndam ci waa Pastef fii mais lépp lu mën a def ci àddina te amuñu loolu pour man dañuy perte lu bari te leneen li Macky moom moo koy jariñoo parce que Macky lu mën a am ci àddina gëm naa ni nitam jël nguur gi moo ko gënal maanaam mu ñàkk Sonko ñàkk mu doonoon ay kàddu yoo xam ne tey jii dañ ko doon yëkkati di gërëm ñëpp di leen sant di jéggalu di wax ni di la ñu dégloo xel ba ñu dégloo xol di nuyu bu baax El moo Modou di ko gërëm di gërëm ñëpp waa solution di ñaan nag kër gi suñu borom def fi jàmm solution mu gën a dox gën a neex mais aussi ngeen di gën di abonné mais aussi ngeen di gën di partagé ah aussi ngeen di gën tamit commentaire yi te critiques yi même boo la ñuy critiqué ñu ngi koy suivre di ci bàyyi xel lu ci doxul rek nit moo matul mais lu ci dox ñu gërëmee ko yàlla Omar bun Xattaab Gueye moo nekkoon ci kàddu gi. Eh, gërëm ñëpp sant leen di ñaanal Cheikh Bara Ndiaye rek balaa jeudi bi di ñëw mu génnaat fekk suñu fii ci liggéey bi mbokk yi kon eh, jërë ngeen jëf.